asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna dal leen ak jàmm seen xibaaru xobar xobar ah fii si Diassigui TV ki leen koy présenté mooy seen mag ah, seen rak seen xarit ak seen am di jàmm di Mor xobar xobar anti stress xibaar yi nag boo ko déggee da ngay kontaan reetaan mel ni ko lu coxtaan si poxtaan leer na jaara bu so borom poroxaan du samay wax nag waxu àdduna la du samay geste geste àdduna la du samay jëf jëfu àdduna la ah, am na ñoo xamante ni lu bàyyi leen dëkk ku mel ni ki nga xamante ne mooy Seydina Omar Fall dëkk fële sa Thiès benn dëkk ñaari gaar moom nag nit la koo xamante ni boo ko xoolee walla nga gis ko wala nga dégg ko doo découragé doo découragé man damaa bëgg kooku zem Seydina Omar ba zem du xale waaye aussi tamit du mag Thiès la dëkk à l'âge de six mois la dugg ci école bu kenn weddi ndax jardin la démarré petite section grande section jaar yi jamono du dox jamono du dox ba nga ba mu war a yegg fi nga xamante mooy fara a at mais mu reculé ndax dafa dem ba premier mu reculé ba mu reculé nag xaw naa découragé si li nga xamante ni mooy jàng bi façon boo xalaat mu dugg si uniquement ngir bëgg réussir nekk na fi téer ñaw ku mu ñawal nga sañse yére góor ak yére jigéen da koy ñaw ba tey mu ngi ci jàng bi de génn Sénégal dem fi nga xamante ni woon réewoon Côte d'Ivoire Abidjan nekk fa sportif kenn xamut mbër la woon kenn xamut joueur la woon kenn xamul kung-feur la kenn xamul rythmeur la kenn xamul basketteur la kenn xamul yàllaa xam waaye nag moom mu ngi doon pratiquer li nga xamante ne mooy sport mais tubaab nee na reculer pour mieux sauter olof ne boo demee ba xamantoo fi nga dem da ngay dellu fi nga jóge woon moom fu mu jóge woon école yéen a ngi koy bàyyi xel dellu na fa à l'âge de quarante deux ans dafa delloo dafa amoon mu bëggoon looloo doon objectif am am lan la woon bac baccalauréat <laughs> ay bac moom la jaral nga bàyyi jàng nga dugg téer def sport <laughs> moom daal bac bi moo ko intéressé woon yàlla def na may na ko à l'âge de quarante deux ans nee la du tamay wax du samay geste du samay yëf du li nga xamante ne mën naa ko def Seydina Omar moom moo ko def sa benn dëkk ñaari gaal à l'âge de quarante six ans la ko yàlla mayee bac moo tax doomu aadama waroo découragé jàng tamit du wees moom wax olof boobu la dégg jàng du wees keroog ba mu amee li nga xamante ne mooy bagam à l'âge de quarante six ans mu war a prêter li nga xamante ne mooy serment kookoo gëm boppam kookoo bëgg li nga def booy léegi à l'âge de dix ans la ñuy amee bag waaye moom xoolal noonu noonu yëpp nee du découragé nee na du bàyyi ba mu amee bagam nag kenn xamul fan la mujjee kenn xamul professeur la kenn xamul promoteur la kenn xamul daa continuer kenn xamul li nga xamante ni daal moom daal mais sàccu toxut geesu bonut à quarante deux ans bi nga xamante ni am na bac fan la jëm kooku mën naa dugg université déedéet moroomu seex Anta Diop la bu duggee université gars yi dañ koy dàq moroomu Cheikh Anta Diop la mënut a dugg université parce que à l'âge de quarante deux ans kooku bu doon jigéen ñu ne mën pose na comme ku góor la nag mu ngi jëm paa paa nag moom wax dëgg yàlla lu ko desee akub bant ak ku kaan du samay wax wax bi nga xamante ni du waxu moor xobar waaye tamit du bind jaasigi TV dañ koo bind ñu liir ko man leen koy faral fàcceel lu am lu ne dama leen koy créer tegal leen ko ci table bu ngeen consommer ko bu ñu jugee benn dëkk ñaari gaar li fa xewoon loolu yéeme na doy na waa dañuy dem fi nga xamante ni mooy dañuy génn Sénégal dugg fi nga xamante ne mooy États-Unis buñ fa duggee nag fekk nañ fa benn femme bi nga xamante ni cinquante six ans la am attanga dama bëgg lépp lu may wax ak yéen rek mu leer moo tax ma bëgg sama kanam bii leer si yéen cinquante six ans la am moom nag yàlla may nokku ko fukki jëkkër dix borom kër la am mooy takk mooy joxe can mooy nopp mooy fase moom na ki mu njëkk fase ñoom ñaar huit lañ sëy lu waral mu fase ko loolu la gars yi di laaj waaye man maa ko lijjanti ba xam ko nee na ko sëy naa ak yow huit bi dafa bëri man bi ma bëgganteeg nit huit ans xam naa dama lay mujjee fase daal may la sa baat fase na ko lu waral mu fase ko mooy amul bee yàgg sëy naag nit li nga xamante ni mooy six mois mooy deuxième borom kër jékki-jékki na fase ko lu waral mu fase ko borom kër gi posé na ko question ne ko man lan moo waral nga bëgg maa fase nii ak man ni ma la bëggee mënu ko bëggatoo ma ndax jamono bu may doxal ñuy toog ci taatu sump yi bu ma waxee nga ni ma jotal ma ni la lan moi boobu ñu ne naanandoo ataaya di toog ci taatu garab yi heure bu ma waxee di lekk ataaya di naan ataaya di yëy caaf heure bu ma waxee nga ni ma je ma ne la la moi aussi boobu yaa ngi labat ba nga demee ba dugg ba am li nga bëgg waxatoo ma je t'aime loolu mën na ko yo xam nga ni moi aussi je parce que je bu yàgg bu sax nga ni man bëggatuma la wala lii lan la mënoo ko man nag je boobu laa bëgg comme que mënatoo ma wax je t'aime nag

yow dootoo diriger moom mooy diriger mooy takk sër mooy takk tubé yow daal toogal melal ni femme buy sëy yow ku góor ki ndax moom moo la takk moo joxe canam joxe ñeent ak tanaas dafa doon lu ko kafa dóor femme bi naan muy yaay oh my God oh my God ba mu naanee gaññ na jëkkër ji ne ko kii dose rek la bëgg mu ne ko mais fekkee même dose bi amul suukar mu ne ko non yaa ni ma dose un peu de sucre mu ne ko un peu de sucre nga bëgg maa doroge fase naa la fase na li nga xamante ne mooy nëb fukkeel ba nag xam nga li tax mu fase ko ceebu keccax c'est honte quoi am na yenn yoo xamante ni c'est honte mais moom joxe na dépassam dëkk ji dem na marché jënd na jënd na keccax ah jënd jënd jënd lépp li si war a dem si ceebu keccax bi togg ko yàq ko tegal ko kudd tegal ko pipet tegal ko ndox bu set tegal ko ndox bu tan lépp defal ndox ko femme bi lekk ba ñeexam saf yàpp xelam dem si comme fii mi comme fii mi mu ne ko ceebu keccax bi neex na xanaa amul comme ko ceebu keccax ceebu keccax ceebu keccax jëkk ji wax ko trois fois ndax dégg nga ma ceebu keccax musta am confiné si àdduna bi demal nga laajte ji waat mu ne ko c'est faux ceebu keccax day am confiné yow comme que yéene woo ma confiné ak man ni ma bëggee confiné fekk fi ne lakkee confiné confiné nu mu neexee dama lay fase fase nag fukki jëkkër ndax confiné ba tey nag moom découragé wu nee na mu ngi wóor li nga xamante ni mooy borom kër man nag maa dem ba toog moom

wala tamit bu fekkee man neexu la boo ñëwee fii Sénégal bëri na ñoo xamante ni ñeent ak terrasse nga leen jox can gi fi méttiwul vingt six mille six cent la wala vingt six mille cinq cent ça dépend si jàkk jumaay jumaa ah, am na mbër bu dee jëkkër mbër bëgg mu ngi fi am na menuisier métallique bu dee menuisier fi am na maçon bu dee da ngaa bëgg jëkkër joo xamante ni dalay raax di la kuule di la toj di la fondement di la bâtiment di la karo am na am na jëkkër joo xamante ni menuisier bois bu dee da ngaa bëgg ku lay rabo wala ku lay wala ku lay yàq di la deseena am na fi am na jëkkëru mécanicien bu dee da ngaa koo xamante da lay def ni moteur tas la tapati la ba pare boolewaat la am na fi ban façon jëkkër nga bëgg yaa choisir waaye du ma génn sa réew dama fay toog li tax ma fay toog mooy léew mu mystique baa nga fa bu dee gàllaaj dalaa jàpp nag xoolil sa bopp waaye kii la gàllaaj jàpp mooy kii la jiite sa njiitu bu réew keroog ba nga xam ne si lay joganteeg Donald Trump Donald Trump man maa fekke fu mu ko ne koo ëpp li mbokk mënoo koo jëw fexe nga ba nu yaa ma gañe waaye da nga xam ne ëppoo may mbokk keroog dimanche ba ba ñu koy gañee Donald Trump lundi laa xëy man gis Donald Trump Guinée Bissau mardi ma dajeeg Donald Trump Ziguinchor mercredi ma dugg do Gambie daje Donald Trump jeudi ma dugg fi nga xam ne mooy Diamniadio daje faak Donald Trump vendredi ma dugg fi nga xam ne mooy Sébikotane daje faak Donald Trump samedi maa dugg fi nga xam ne mooy mbaaw daje faak Donald Trump Donald Trump daal jaar na mbaaw dak mbaaw sikap mbaaw fas mbaaw eg mbaaw grand mbaaw petit mbaaw kon mbaaw daal na fépp ma foog ni moom Donald Trump ku ne xam ne ne daa feebar nag amul ballottement palpitation rhumatisme yaram bu mel tàkk xasa dugluñ wax ko yu yëpp dajaloo sa yaram dee rek lay dese ndekete yow moom feebaru mystique lay wut waaye mystique la jóomane président États-Unis mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla moom mystique bi jàpp na ko ba si biir këram li lay wan ni mystique bee ko jàpp dafa toog yàlla da koo boole lim gën a bëgg si àddunaam ñun sénégalais dañoo bëgg nañ xaalis bëgg nañ sañse bëgg nañ lu ne ku nekk ak li la yàlla xiir man maa ngi nii li ma gën a bëgg sama àdduna wax nit ñi di ma déglu la te fii lay amee fii ci Diassigui waaye moom li gën a bëgg si àddunaam xam nga lan la xaj ullul see la gën bëgg si àddunaam ñaata su la yor ay la yor ay déverment la xaj yépp la boole si ñaari xaj waaye koo koy xaj di foo doo dàkke la doon foo làmbi kol ku jug yaaka moom di foo xaj yi doo dàkke làmbi kolo ku ku làmbi kolo ku jug daanu kolo moom làmbi xaj ku jug daanu moom làmbi xaj ba tarxiis damm na bu yaay ñii nee nan daa dëgg banaana tarxiis ñii nee nan xollitu mango la dëgg tarxiis ñii nee nan xollitu màdd la dëgg tarxiis ñii nee nan tamit lan bu nu toj moo ko tarxiis kenn xamut waaye li am ba des daal mooy fiñ ko wiir te wékk ko mooy mystique ndax États-Unis mystique bi sonal na leen li tax mu sonal leen ñoom dañoo dem ba dëkk fi réer ñoom ñu waxtaan population bi da ngay romb ay nit sax ñuy réunion nga romb benn famille nga yaakaar ni dañuy waxtaan waxtaanu famille rek dañuy waxtaan waxtaanu mystique ban génnee nag ñoom nee ki nga xamante ni parewul mystiquement du leen jiitu ndax ñoom seen réew réew la bi nga xamante ni réew bu mag la réew bu yàlla namm la te bu yàlla nammee jaam bi namm namm namm yàlla mooy namm namm yàlla moo namm États-Unis doon réew bu màgg ku pare mystiquement moralement mentalement physiquement communicativement moo leen di jiite waaye seen président pare na mystique parewul mystiquement pare na moralement pare na mentalement pare na communicativement waaye parewul mystiquement kon na wutu mystique incha allahu rabbi balaa le 10 janvier ndax la 10 si la fas yéene traité li nga xamante ne mooy serment wax ni muy jiitee waa États-Unis loi bi lii la nam loi bi lii la bañ loi Diassigui TV nag bañul dara xibaaru xobar xobar ak Diassigui TV fii rek ngeen ko mën a amee abonné leen aimé leen commentaire leen moo xobar xobar anti stress ba tey nekk maa ngi doon ànd ak sama cadreur bi nga xamante ni mooy daam nee naa ne lépp guddi lu génn si Diattiguy TV ah kooku moo ko cadré macha allah waaye nag lépp nga xamante ni moo jànn si Diattiguy TV gis jaar kooku giri la Diattiguy TV maa ngi santaat yàlla di julliwaat si yeneen ci bi ak Diattiguy TV TV